ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk turam ak santam di leen uh, masawu coono te di leen ndokkeel ci bésub safar bi nga xam ne moo di 18 safar tombeex euh, le 17 octobre 2019 euh, euh, file ci Touba ñu ngi file nag ci Daaru Xudoos ah, di bërëbu ki nga xam ne moo di Serigne Mouhamadou donc Aras Mbacké ibn Serigne Saliou Serigne Fallou ibn sëñ Mourtada Mbacke euh, ñu nekk nag ci bërëb bi fii nga xam ne dañ fi faral di amal ay jotaay yu am solo ci bésub safar bi ah donc jagleel ko taalibe yi jagleel ko mbokku jullit yi mbokku àdduna bi nga xam ne ñoom ñëpp ñu ngi teewee euh, li nga xam ne moo di màggal euh, bu Touba euh, ñu ngi file nag ak jëwriñ bi di Cheikh Thiam bëggoon na rek addoog moom tàmbaleek moom waxtaan bi nga xam ne jëm na ci safar bi ay témoignages yoo xam ne namm nañ ko am ci taalibe ak seen digganteeg seen sëriñ moo waral rek suñu teewaay fii xanaa rek ñu bàyyi ko mu présenté wu wax ñu wax ñu tuuti rek ci gis-gisam ci bésu màggal bi lay sëñ bi ñu ngi lay ñoo ngi lay fay bu baax. tay ñu fekk leen fi ci bërëbu sang bi ban taxaway lañ mëna xaarandi ci bésub safar bi. alhamdulilahi rabbil alamin rahmaani rahim maliki yawmi assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokki mbokk yi mbokk talibi ñu ngi leen di nuyu bu baax ak fépp fu ngeen mëna nekk réew mi ak ci bitim réew ñu ngi àddu ci set dakar Dakaractu ñu nekk fii ci kër Cheikh Mouhamad Fadal ibnu Cheikh Moutada lenn ci ay njabootam mm, di Sërif Mohamed Aras doon jëmm joo xam ne dañoo fas yéene ànd ak moom ci liggéey Sëñ bi euh, avant tout nag ñoo ngi ci ziyaare bu baax xalifa sénéral des mourides Cheikh Mouhamad Mountakha mi nga xam ne mooy euh, xalifa sénéral des mourides mooy Sëñ di ko ñaanal suñu borom guddal aw fanam te ay cëram bu baax noonu laa ko ñaanale Serigne Cheikh Fall jëmm mi yàlla jëmm mu toog toogaay maam Cheikh Ibrahima Fall di ko ñaanal njabootu Serigne Touba gépp li ko tàmbale ci Cheikh Mamadou Moustapha ba ci Cheikh Moutada eh, li ko tàmbale ci Soxna Fadja ba ci Soxna May Mouta Soufra eh, ñoo ngi fii nag ci kër Cheikh Fall Mbacké Mouhamadou Moutada eh, fas yéene dundal nag bés bi nga xam ne Cheikh Ahmad Bamba moo ko woote woon. nañ ko ci santre yàlla euh, ci teraanga ju ko jëfan euh, li ko tàmbalee nag ci euh, ganaar ba ci gileem lu ci waaye am def ko ci ay bernde moom nee na bu dee fekkente ne mbégeem mbégam sa mbég la rek na nga ko santale yàlla ci teraanga ji mu ko defal nag ba tax na ñu ngi ànd ak Sëriñ Mohamed Aras Mbacké mi nga xam ne kenn la ci njabootu Cheikhul Khadim di doom ci sëñ Fallou ma ànd ak moom ci liggéey sëñ mm, moo xam nag ci biir réew mi ak ci bitim réew euh, partout dans le monde mu ngi koy jëmmal euh, Cheikh Mamadou Fadal dafa jëmmal liggéeyu maam bi nga xam ne euh, daa bëgg mu gën a yaatu ndax ñëpp mën see jëriñ man mi nga xam ne nag man ab dong bu ndaw laa ci moom fas yéene andak mom ci liggéey Sëñ Tuubaa bi ndax kuma xam xame ma Cheikh Mourtada mi nga xamne moy mo mo moy wajur wajuram waajur waajuram di Sëñ Fàllu man ci la nekkon bu ma amé jurum naari at waye nak alhamdulilah rabbil alamin ba ma yàlla bolé wat Cheikh mohammed Fadal fasiyene andam mom ci liggéey Sëñ Tuubaa bi amna ñu taxalu foofu ba ci kanam rek inshallah euh tour beeg sante bi. soxna Degen jorn la tudd. ñu ñu gis ne yow daanaka yaay yaayu daara ji tay mu di 18 euh, safar di bés bu màgg ci yoonu murit ñëpp képp kuy murit rek yaa ngi koy yaa ngi koy màggal ci benn anam bi ci tudd yàlla ci jaamu yàlla euh, ci mbégte ci joxe euh, li nga xam ne moo di bernde tey yow nan nga ko dundee. mbégte rek mbég mbég mbég mu du jeex ndax kër gi dañ fee yàgg. def nañ fi ay ati ati ati at biñ fi ñëw boobu lu bari amagu fi woon maak sama mag gu jigéen sama mag gu jigéen moo kóllëre woon ak sëñ Fallou ba léegi mën a tut fi yebal ñu nag soxna si ñu nekk biñ fi nekk fii lañu soxna si ni teg si kaw si kaw gi fii presque ñun kese ñoo fi nekkoon ba ñépp ñu ñu fi fekk mais fii ñun ñoo ko mës a occupé yàlla di def di def di def di def ba tey ñëpp ñëw ñu ngi sant yàlla rek ñi ngi sant yàlla bu baax a baax a di sant sëñ ax sëñ Mouhamed Aras ndax dañu yàgg ak moom ba muy tut tànk ba tey ñu ngi moom mu teg ñu suñu palaas bu ñu yegsee mun a xale yi soxna diggéen mi ak ñi ma àndal teg leen lu ñu bëgg nang leen ko jox daf ñoo teg suñu place rek Mbàkke ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko sant di ko sant di di ko wax ni yal na ko yàlla bàyyeeg waajuram yi di maamam di séddale si Touba gi nag Mbàkke sëñ Aras yàlla benn bu yàlla bu ko si kenn ëppale ndax kontaan nañu si moom bu baax a baax dafa mën nitam Aras dafa mën nitam yal na ko yàlla yokk. Euh, sëñ bi nuyu nañ la. waaw maa ngi leen di fay. Euh, tur sant ma Touré Mbaye. talib sir Amadou Aras mbake ça fait 4 ans maa fi dal sëñ bi don ni ku bax Aras don sunu serigne don ko oyof vraiment saa bonu jaxé wa wax ko wowe mo ñu defal ñaan mo ñu topato mo ñuy won yoonu Serigne Bamba dal tur beeg sant bi Abdoulaye Samaté. taalibe Mouhamed Aras mbake waaw euh, Abdoulaye tay ban yëg-yëg nga ñëk am. ci safar gi. tey bisu mbégte la bisu kontante bu rëy rëy ndax sëñ Tuubaa dafa woote sant yàlla ndax sant moom si la lépp nekk si la yokkute nekk nee lu waaye am ginaar ba gëléem nga santalee ko suñu borom mënoon na ko yemale si moom kese mais dafa woote jullit yëpp na ñëpp ñëw ñu santal ko suñu borom kon tey dañoo ñëw di sant bëgg rek. waa sëñ bi yàlla dañoo boole mu nekk sama wasila di ma teg si yoon moom sëriñ la boo xamante ne dafa jub ba pare di jubale tegu si yoon bi ba pare di tegaate si yoon sëriñ la boo xamante ne forcé wul taalibe pour ñu topp ko lu mu bëgg si taalibe yëpp mooy jaamu yàlla liggéeyal sëñ Tuubaa xoolul ay mbooloo bu bëri ndax mbooloo lu mu bëri bëri te teguñu si lu sëñ Tuubaa teg amul njariñ moom lu mu bëgg mooy ñu tegu si yoonu sëriñ Tuubaa doon ay Baay Faal dëgg di liggéeyal sëñ ñëpp ràññee si waaw. macha allah hmm. ñu ngi leen di jaajëfal bu baax si teewaay bi. Murtada wallahi bu nu gisee aras Mbàkke sunu xel yi day dem dem si sëriñ yi bo jàmbari alxuraan asawala masanawel mamare mason yibo asawala masanawel mamare mason yibo asawala masanawel mamare mason yibo asawala masanawel sunu góor ga sa Tuuba sa moori xam na la sunu góor ga sa Tuuba sa moori xam na la yow aras sa Tuuba mama reema xam na la Mbàkke ma xam na la aras Mbàkke ma sa Tuuba son yi bu xam na la aras Mbàkke ma sa Tuuba son yi bu xam na la Yo Arasu Mbàkke ma ba Tuuba Falliloo xam na la yow Arasu Mbàkke ma sa Tuuba Baay Faal yi xam na la jërëjëf Serigne Touba jërëjëf borom Cheikh waaw rek barki mom serafal Fall bi nga am ba yëg ci bi ñu sentir ko euh lu fu mu joge ak lu ko waral waaw mbégteem safar si barki maam Serap Fall ndax ñun amuñu kenn ku dul Serif Mohamed Aras Mbacke moom lañ yaakaar tey ëllëg waaw te toppeewu ñu ko dara yi saayal waaw ngir moom jëmmam ji barki maam Serap Fall yàlla kese la ku ko gis rek faw nga topp ko bu la yàlla ñoree barki maam Serap Fall ñun danoo mën a wut wax ndax liñ bëggoon wax yëpp Baye Fall sax wax nañ ko amaana waaw waaw mais dañuy santaat ndax ñun li mbégte la si ñun fierté la si ñun ñun ñuy liggéeyal ku tedd ki mooy fierté si ñun. moo ñuy bégal mooy ñuy dundal mooy daw suñu deret waaw rawatina na bu ñu ko àndee ku baax ki Serigne Mohamed Aras Mbacke wàccee boppam te foo ko fekk moom du wane lenn lu dul ak taalibe képp lay wane. te loolu daa yomb si jamono ji ñu nii Serigne soo xamante ni maam day dox si taalibe di la woon ak taalibe te lam lay sant dala si jiitu kon yaakaar naa ne ku mel noonu yombul bu la ko suñ tubaab baaxee war ngaa sant ñun nag danoo am lu kenn amut muy Serigne Mohamed Aras Mbacke bint soxna Mariama Mbacke. waaw kon ñu ngi sant bu baax a baax waaw ibnu Serigne Baaw a Serigne wax soxna Mariama Mbacke bint Serigne Sonhibou kon ñu ngi sant daal Baye Fall di sant Baye Fall yeeg Yaay Fall yi ah waaw isbul xadim bi axlu janna kullukum waaw tey moom bisu mbégte la na Baye Fall yëpp ree barke maam Seera Fall jaajëf jaajëf sëñ Aras est-ce que mën nañ xam tur beeg sant salaamaaleykum mbokk yi man la soxna Mia Aras bëgg fàllu Miaras ñu fekk la fii Daaru Xuddoos ci kër Serigne bi euh, c'est la première fois nga ñëw euh, màggal si fii wala. non non c'est la deuxième fois bu fi ñëw. yëg-yëg bi nga am ak nan nga gisee màggalu ren bi. Machallah, Magal, màggal Machallah. Machallah, allah macha allah sant nañ bu baax macha allah sëriñ jamono ji ñu toll sëriñ dafa jafe booy topp nit rek xoolaat ko waaye Serigne aras ku ko topp macha dañuy bàyyi loolu bëri jëmiñu fu sori macha allah daal macha allah rek nañ mën a wax waaw sant nañ ko bu baax Mbacke Balla Aïssa dama koy ñaanal rek Mbacke yàgg fi lool gën a wér loo fi yàgg doyul macha allah. Hmm, sama sëriñ la sama xarit la avant tout nekk sama sëriñ waaw muy mu def lu bari ci sama àdduna ndax Mbacke damaa dimbali sagal ma awma ma fayam.

ban gis-gis nga fi nga fi setlu ban ban yeg yeg nga fi am yar la fi gis euh, waw yar la fi gis oyof bok bok lepp dal mom la fi gis waaw est-ce que euh, ak say bés yi nga dan passé fi magal bi euh, bi nga dan passé Touba magali amna différence amna différence kagne amna différence bu reuy parce que daw mon guen waaw dama daan toog sama dal rek ren nag moom yàlla dafa def mu teg sañ bi euh, ma fi fii ñëw mais réccu ma ko waaw ma ko. mel ne émotion bi fort na parce que ku la xool sax xam ne eh, yaa ngi koy yëg ah, donc euh, sa bët yaa ngi taa euh, lan nga sentir. lu rëy laa sentir lu rëy loo xam te ne kenn mënu koy exprimer mais sant yàlla la rek sant yàlla sañ bi ñun am na fayam di ko ñaana rek yàlla gën guddal fanam wéral ko. ba lépp loo xamante ni mi ngi koy bëgg liggéey si kër maam bi yàlla jàppale ko waaw barke Seydina Mohamed. Bamba ñu ngi leen di nuyu ñëpp di leen ziyaare di leen baalu àqit di jiital ci nuyoo boobu suñu kilifa gi toog Cheikh Mouhamadul Fadal ibnu Cheikh di ko ñaanal mu yàgg fi yaramam wér ba lépp lu mu bëgg liggéeyal sëriñ Touba mu def comme ni ko sëriñ Touba bëggee mu ne Mbàkke bis bi ñu dañ koy def ak di ci yeesalaale sunu njébbal ak suñu taalube gi nga xam ne dañ koo jébbal sëriñ Touba te yéen ngeen nekk ci suñu buntu ngeen nekk suñu buntu ci sëriñ Touba bis bii mooy suñu bisub yeesal ci yéen bisub mbégte ci ñun ñuy ñëw di yeesal suñu taalubee ci yow ndax nim ñu ko doon waxee nim koy waxee sëriñ bi saa su nekk xoole wuñ ko waajur ñun ay lan def ab sëriñ lan ko jàppee fas yéenee nekk ay taalube jaay njureel gi jënde kook taalube liggéeyal Serigne Touba ci moom ba am ngërëmal Serigne Touba te loolu jaar ci ay loxoom kon nag Mbàkke ñu ngi yeesalaat suñu njébbal yeesalaat suñu taalube di la sant di la gërëm ci taxawaay bi di am mbégte bu baax nag tay di wat suñu bop di la xamal ne suku nañ ci sa kanam jox nañ la suñu lepp nga joxol ñuko ko Serigne Touba jappal ne dal ñun duñu lenn ludul seeni talube seen ngeerum rek lañuy sakku lepp lu ngeen bëgg ci ñun fas nañu yene def ci luñu man mbolo mi ñu andal nak amuñu kenn ku dul mom mi moom it amul kenn ku dul yow mii kon nag jël na mbooloo mi boole kook boppam teg ko ci sa loxo nga tegal ñu ko ci loxo Serigne Touba ñu ngi jéggalu nag ci mbooleem rëcc-rëcc yoo xam ne dal na taalibe yi ñu ngi koy jéggalu yàlla tey ñaan nga jéggalul ñu ko suñu boroom ndax fasuñu yéene Boko ci mbolo mi nga xamne ñom la seigne Touba di wax ne amna mbolo mu koy tuddo te juk jamono te ña nga tegu ca yoon wo xamne ne suñ yoon wa safara lan jëm kon nag fasuñu mbol yene bokku ci mbolo ma mbolem rëcc rëcc yo xamne dal nañu ñu ngi ñaan suñu borom mu jéggal ñuko waye ñu ngi ñaanit nga ñaanal suñu borom mu jéggal ñuko ci barkeb Serigne Touba Mbacke dal jox nañ la suñu lépp addiya yaangi ni suñu jëm nga ni amuñu lenn xamuñu kenn mënuñu lenn lépp yeen rek la sant nañ leen bu baax gërëm leen bu baax allahumma salli ala sayidina muhammad wa sallim

lu ngan nga neex neex lu mu xumb xumb ñaari baat rek lay nuyoog ñoom moom lay tàggook ñoom it góorgóorlu ci ndigali suñu borom yi wattandiku tere yi loolu nag soo ko waxee ku bëgg lu gën a gudd loolu loolu day xaw a gàtt ci moom te loolu nag moo ëmb àdduna ëmb àllaaxira ndax sëriñ Touba daf daan wax ne nit ki su taxawee ñeenti tomb rek ñoo ko wër li ko suñu borom digal ak lim ko tere ak li mu bëgg ak li mu ragal daana wax ne waxtu woo jógee jëm ci lu na suñu borom digal la nga bëggoon te doon ko wuti day jàkkaarloog yow ne la jarumaa xoole ñoo bokk fu nu jëm la nga ragaloon te doon ko daw mu nekk ci sa ginnaaw danay wax ne jarumaa gestu bokkuñu fu nu jëm loo xam ne soo jógee jëm ca la nga bëgg da nga dajeeg moom la nga ragal doo ko gis loolu lu mat di fàttaliku la moo ngi ñuy soññ bu baax a baax ñu gën a góorlu ci ndigalu suñu borom yi wattandiku tere yi mu ne ñun nag suñuy wax dadul mën a gudd ndax li ñu waxoon démb rek moom la ñuy waxaat tey waxi Cheikh Momadou Moutada waxi Serigne Touba sëriñ Touba nag da daan wax ne. su ngeen demee ba seytaane ak àdduna bëgg leen a jëme ci lu dul yàlla ak yonente bi su boobaa na ngeen ca delloo seen bopp ca saasi te bu leen ko waaj daana wax ne mu ne sëñ Tuubaa daana wax ne seytaane bi mu xoolee digganteem ak boroomam diggante Serigne Touba ak boromam. diggante Serigne Touba ak boromam. mu xam ne mënu caa yàq dara. dafa wax ne na ko ñaawal. dafa wax ne na ko ñaawal. ni mu koy ñaawale nag. ni mu koy ñaawale nag. ku mu gis meloo na nga war mel. ku mu gis meloo na war a mel. mu ne la tuddool kee. Serigne Touba nag dafa fu waay nekk te di ko tuddoo. nee na fu nekk te di ko tuddoo. na farlu ci ñeent yi. jàng alxuraan. Jangan khasida julli juro julli jurom tay liggey liggey nak bu bax la ca tek mu jang alquran li mu mata farlu soko de susunya def su suñu borom di lim wa këram bolé la ca ta luy tax su suñu borom di lim wa këram bolé la ca mat farlu jàng eh, jàng xasaayit li tax mu mat a farlu. soo ko dee def. suñuy lim waa kër lim waa kër Serigne Touba. boole la ca. te luy tax suñuy lim waa kër sëriñ Touba boole la ca. loola it mat naa farlu. julli yu juróom nag. dafa wax ne. santaane buur la. santaane buur nag. buur nag. def ko dana tax a jubóog buur luy tax a jubóog buur lu ne it mat naa farlu liggéey nag soo gisee mu teg ca bu baax defe naa ne soo ko dul def dafa wax ne soo ko dul def li mu santaane doo ci mën a def dara kon nag ñoo ngi leen di sant bu baax di leen ñaanal suñu borom mu def ñu ay mag mag yoo xam ne mag yi lislaam lay doon mag ñoo xam ne dina nangoo liggéeyal Serigne Touba ndax lii kat ab tàmbali la ba tax na kon ñu gën a góorgóorlu bu baax ndax liggéeyal sëriñ Touba dafa am solo. loo xam ne soo ko defee say aajo faju la ngay sàkku di nga ko am loolu lu mat di fàttaliku la ndax sëñ Touba moo ko waxal boppam waq di xawaa isa wa dina daamoo bi xidmati wa xidmati maaraamoo dafa wax ne suñu borom yàlla nga faj aajo ñi nga yàlla nga faj aajo ñi nga xam ne. sax nañu ci di ko liggéeyal. sax nañu nga leen may la ñuy sàkku. yàlla nga leen may ca la ñuy la sàkku. loo xam ne nag ko boo loo xam ne nag soo ko dee def. sa aajo say ajo faju. la ngay sàkku nga am ko. la nga am ko. loolu it lu mat a góorgóorlu la. jërë ngeen jëf. mu ne sëñ Ahmadou nag. moom itam. ni mu ko waxee rek. loolu la ñu xam ci moom xam na ne bëgg na lool ak taalube te mu ngi góor góorgóorlu it lu mu man ba tax na moom itam dinañ ko ñaanal bu baax a baax suñu borom sàmm ko aar ko ci lépp loo xam ne nii luy gàllankoor la suñu borom mën na ko yàlla na ko def te boole ñu ko ñun ñëpp ñun ñëpp nag ñu ngi lay mu ngi leen di ñaanal waaye nag waaye nag day sàkku it ñu ñaanal ko mbake yàlla nga fi yàgg tëwee yàlla nga fi yàgg tëwee mm. mm. waaw te boole ñu ko ñun ñëpp mu ne yàlla nu ko yàlla boole jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf